Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf fii ku fi mbaam mbaam lu ñu lawbe lawbe lu ci sa kaw wax ji diis na ngeen baal ma ko waaye noonu rek la ñu tënkee kàdduy Macky yi Vox koy kàdduy avertissement yu mu jagleel Barthélémy Dias ak compagnie yëral xët mu njëkk yéenekaay bi Macky nee na duñu bàyyi benn maire di ko seetaan muy def lu ko neex maire bu fi nekk bëgg di def lu la neex ñu wàcce la bépp maire bu fi recruter ay nit jël leen di leen liggéeyloo nañu ay maire yoo xam ne bi ñu xamee ne dañuy folleeko ca la ñu ay nit di dul jeex bàyyi leen ca mairie ba soog dem loolee nag problème bu rëy lay doon ci réew mi te duñu ko seetaan muy jàll lépp la tegaat ci yoon bés bi le jour nañu mairum Dakaaru di Barthélémy Dias na waaj te xam ne Macky Sall mi ngi ci kawam La Tribune nañu Macky Sall mi ngi ci tànki folli Barthélémy Dias L'Observateur nañu muy Barthélémy Dias mi recruter bu yàggul capitaine anam wu jaarul ci yoon Sud Quotidien xamal ñu ne loolee lépp moom président Macky Sall démb xamal ne recrutement ba nax saay na Macky Sall ne duñu bàyyi benn collectivité muy dox ci lu safaanoo ak li code beeg bi santaane saafara lépp luy dox ci réew mi te jaarul ci yoon ba noppi na xuppaate sud nañu muy Barthélémy Dias meerum Dakar di yeneen maire yi nekk ci réew mi Macky Sall avertise leen wax ne ci xew ci réseaux sociaux yi waxit ci média yi ak a wéy di fay ay liggéeykat yoo xam ne dara la ñu liggéeyul liise ko moom gis ne démb bi muy daje ak syndicat yi moom président Macky Sall doon nangu seen cahier de doléance kaata ak ray la ne woon ca ndaje ma nee na mu ñu noo nangu réew mu mel ne Sénégal di réew mu ndaw ñu fi wax ñaar fukki yéenekaay ak juróom-ñeent di fi wax ñeenti téeméeri site internet ak juróom fukk loolee anarchie dëgg la réseaux sociaux yi ak ni ñu mel ci jamono mu ne cancer la waaye dinañ ci jël koo jàppale le témoigne nañu poste ma nga ñu teg ci jaag jëm moom ci armée de ngir suuli ko ndax président de la république nee na entreprise bu am juróomi junniy liggéeykat xittili ko du yomb mu ne mu ñunoo xittili entreprise boo xam ne amel na état bu Sénégal 189 mu ne état bi mënul fay ay liggéeykat yu bare noo rawatina liggéeykat yoo xam ne ñu bari ci ñoom tous ba tous booloo jeex liggéeyu société boobee muy wax di poste dafa mel waaye la ñu fa gis doy na waar ay téeméeri chèque prêt ak lu teg yoo xam ne boo ko doon xayma ñi ngi toll ci fanweeri million jàpp ñeenti téeméeri million la ñu fa fekk fekk nañu it ca bureau ya xaalisu xobet xobet bu toll ci cent cinquante millions juge bu deuxième cabinet bi l'observateur nee nañu moo santaane woon perquisition ba élection législative yi ñu dëdmal dépôt parrainage le quotidien mi ngi ñuy xamal ne juróom-benni fan ba juróom-ñetti fan ci yoru mecc la koy bari nañu xam ne li ñu daje ca war a déposer seeni parrain mu indi ak tax na ci tirage au ñu koy amale maanaam koy ku saw tur génn nga dem déposer say parrain mu njaay siise bu ONG 3 di ñu xamal ci yéenekaay bi ne waa société civile bi ñooy def tirage au sort bi Abdoulaye Daouda Diallo jaloore ju ji mu def ci wàllu parrainage si journal La Tribune xëyee ko ci xëtamu njëkk ministre Abdoulaye Daouda Diallo Tribune nee nañu xadd na kaaba gi 81 la dajaleel Macky ngir élection législative yi ca Podor ànd ko nag ak jeunesse ADD ci njiital Mamadou Dia président conseil gudd amal na fa waxtaan wu yaatu ca waxtaana ma nga maire bu baax li ko war moo di fàtte boppam te taxaw ci soxla askan yu fu ñu ko soxlaa rekk gis ko mu neet Malicounda doon ñaareelu commune ca département bu Mbour ci wàllu poids électoral ak it ca nit ña fa dëkk moom Maguette Sène nee na jàpp na ne Malicounda lu mu deedee war naam benn député nee na Macky Sall jubóole ga ca Mbour ba tax jàpp na ne ci élection législative yi danañ fa amee 60 ko dénk Maguette Sène nee na yéene moo di ko noo xam ne doo fa bëgg a leen naqari ci xol mi ngi ci journal Libération yëral xët mu njëkk journal bi soxna si ñu fekkoon ca Tivaouane Pël ba sub korité mu faatu yéenekaay bi nee nañu Mariam War la tudd juróom benn fukki at la amoon dañoo fekk ñu yeew ko xooj ko ba mu faatu transfert d'argent bi wóor ria seen savon yi di créole ak seen déodorant Malaysia Umo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jërëjëf Mamadou Mohamed jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar yi kàddu yu président Sall démb ci bi muy nangu euh, téere yu nu tënk tawat liggéey liggéeykat yi ci kaw premier mai gi xamle na fa lu jëm ci maire ne du ku ko neex mu jël faw mu teg ko ci yoon ak ku ko yoonal lu ko mooy moom sax ci boppam mën na ko jural a postam laaj ba toxtalu ci kàddu mooy mbaa du Barthélémy Dias ki moom yi wax moom mi jël fan yi ku ci mel ni capitaine Touré ak Guy Marius Sagna waxtaane nañ fa démb it ci ndaje mi wàllu réseaux sociaux yi internet geek euh, ni nga xamante ne noo euh, la tëddee ak dakkal moom faaw mu am ca ci ni ci na euh, loole la njiitu réew mi xamle élection palak euh, député yi fanweeri fan ak benn ci weeru sulet lay doon euh, tey jii wala ëllëg ngeen baal ma daañu amal tirage au sort jëm ci ñi taxaw ne ay candidat muy coalition di parti politique nees mën a def ba ñu daal di rangale mbir yi ku ne xam ban waxtu ak heure ngay jaar ci déposé gi ñeel sa dossier candidature wàllu yoon ca barñe tout tànk bi ñu faatoon di Anta Ndiaye xibaar yi dossier baa ngi ci loxoy yi bu euh, quatrième euh, cabinet euh, moom sax juge bi war a déglu tey ñaar ñi ñu ci topp ci wàllu pàate gi Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane Gueye ci micro bi digital geeg soxna Yacine Pouy ñu ngi leen di gërëm mbokk yi leen jox ndaje ci kanam tuuti pencoo geeg RFM ñuy waxtaane rek sunu doom yi ak lu jëm ci seen wàllu kaaraange nees da sàmm leen jamono yi ñuy wax waxi sàcc gune yeeg rey ak dagg seen i cër yeneen ñu gën leen a may gët yooyee gune daan ci daareb maternel Bethléem Providence si lay gox bal si euh, bu éducation pour fay Alaaji Assane dañu koy daal di door rek wàllu football ak trente-deuxième de finale coupe du Sénégal ci senior yi la euh, tey ji nag dana ay match yu bëri ñu mën cee diggante ñaari tali ak assure geneen jogante diggante étoile Lusitana ak Guédiawaye football club HLM bu Dakar moom dina daal di jogante tey ji diggam ak ñi di waa Jeanne d'Arc bu Dakar ETICS bu moom dana daal dalal AS Douanes Mosco bu Tambacounda beneen équipe bu Tambacounda moo di Coton Sport ñoom seen digg ak tey jii jamono Fatick moom dana tase Renaissance sportive bu Yoff Africa Promo Foot dana tase ak ñii di Sport bu Ziguinchor bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee wàllu Ligue des champions di Liverpool bu Sadio Mané moo équipe bu njëkk a qualifié euh, ci wàllu final gannaaw ba mu daanee Villarreal bu Boulaye Dia ni ki démb ci dëkkam foofu ci Espagne ñeenti euh, euh, a woon 2 à 0 Boulaye Dia sax daal di dugal but bu njëkk bu Villarreal troisième minute de jeu waaye ndaw Jurgen Klopp yi gannaaw ba ñu dellu see ñu mel ni daal ñu euh, fépp daal di dal ci kaw ñi nga xam te ne di waa Villarreal euh, daal di dugal ñetti but Fabinho moo njëkk wàññi Luis Diaz daal di égaliser ba ci des nag kii di Sadio Mané moom moo ko jot euh, dugal bi sax moo di juróomeelu but kii di Sadio Mané ci wàllu Ligue des Champions ci atum ren gi doon itam fukkeel ak juróomeelu butam bi nga xam te jot na ko dugal ci match à élimination Sadio Mané daal dina roppi Didier Drogba mi nga xam te ni moom moo féete woon ci classement bi moo féete woon ci bopp raw gàtt gi euh, daal dina kon relégué ci euh, deuxième place bi fi mu toll nii nag ka moo di euh, Karim Benzema Liverpool nag moom dina daal di jouer ñetteelu finale Ligue des champions ci juróomi saison yi nga xam te dañ ko daal di tegle ñoom sax jot nañ kaa gagné Ligue des champions lu tollook juróom benn yoon te bii sax mooy daal di doon seen dixième finale ci wàllu Ligue des champions euh, tey jii nag ci ngoon incha Liverpool bu Sadio Mané dana xam kan lay tasal ci wàllu final gannaaw jongante gu nar a dox ci diggante Real Madrid ak Manchester City ci wàllu demi final retour Ligue des champions ci bu 19h jotee jàppaleen itam euh, ñi nga xam dañoo di waa Citizen yi di waa Manchester City ñoom ñoo gañoon Real Madrid ci match aller ci Etihad foofu seen dëkk ñeenti bal ci ñett Omar bu Ligue 2 moom doomu Sénégal gi di tàggat équipe yi nga xamante ne moo di FC euh, Sochaux euh, ma nga cay daal di xëccu moom sax euh, Omar Daf jot na qualifié Sochaux ci wàllu play off yi play bi ngeen ko déggee moo di ñi nga xamante ne dañuy jongante ngir mën a yéeg ci wàllu Ligue 1 bi leneen li nga xam ne daal mën nañ ko wax moo di def ci trophée bi nga xamante ni union nationale des footballeurs professionnels ñoo ko daal di def yëf yi nag danañ ko daal di siwal

waaye buñ sukkandikoo ci Mame Kour Diouf nekk président CRG bi ay jafe-jafe xaalis la ñu am ngir rek mën a dem ca compétition bopp. autorité yi kenn jàpp ko ñi ci jàpp kenn ki na Koso Diané la mooy président ligue de football ñaar ñi ay nitu làmb ñi ñun muy Moussa Diama ak Ibou lañ doon doxee ba léegi te jeex na mooy lañ jëlee woon ci gala Pape Demba bi tey te mu toll woon ci un million cinq ba ñu paree le lendemain lañ jëkkati six cent mille tasaare ko mbëri pour ñu dem waajal seen bopp la lañ leen regroupé woon jeex na tàkk ne mën na taxaw tey ne binduñu la leer amul. gannaaw ba nga xamante ni nag moom daal dinay jox benn appui CRG bi Pape Mademba bi tey nekk directeur général bu Sénélec daal di ci dolli benn loowu équipement Insa Diouf moo wax ci kàddoom pour ñu accompagner leen ci li nga xam ne day promouvoir li nga xam ne mooy lutte locale bi Pape Mademba bi tey encore moo reveniraat accompagner leen ci mbappat bi nga xam ne dañ ko doon organiser sous forme de préfinancement pour mun a jël en charge seeni problème yëpp pour mun a dem ci compétition yi dans de bonnes conditions ñu indi mais le président Pam Demba tey. compétition drapeau chef de l' état bi nag war a tàmbali le 6 mai ca Diourbel Kaolack nag fas yéene présenté ay bëreekat ci catégorie yëpp RFM Kaolack. Pape mbay Diaw. jërëjëf Pape Mbaye Diaw kon bokk Alaaji Assane ñu daal di yegg di xibaar. di la gërëm baax sëñ Cheikh ànd ak ànd ko ci chronique culture bi. maa leen di nuyu mbokk yi wutali diwaanu Bambey tey ji ci suba foofee troupe bi di këlu mag moom moo fas yéene dawalal benn téléfilm boo xam ne mu ngi tukkee ci euh, dundin bi ci suñu kaso yi mu di projet boo xam ne war na ko def ak euh, chaine de télévision locale bi di Bambey 24 ñi yëngu ci wàllu euh, théâtre bi foofee ci Bambey kon bëgg gën a fësal seeni aar Babacar Diouf ngir yeneen di leeral du yàggati dara dinañ gis ci seenu télé yi benn téléphone boo xam ne nii waa Bambey ñoom ñoo ko defar projet bi de mu ngi nekk diggante troupe théâtrale bi di këlu Mag ak chaîne de télé numérique bi di Bambey 24 mbay Diop moo di président Këllu Mag bu Bambey. ànd jaarale ko ci euh, mbootaay gi nga xam ne nii moo di Këllu Mag di troupe théâtrale boo xam ne macha allah yàgg na def caloore waaye ñàkk ay moyens mooy tax euh, bu ñu tuddee Bambey kenn dootu ko tuddati ah, euh, su ko defee moom itam mu jóg ànd nag ak chaîne télé bi nga xam ne moom la ñuy wax Bambey fene euh, muy ànd nawle ñu taxawal benn mu di téléfilm boo xam ne nii nag dafay wax ci li nga xam ne moom la ñuy dundee ci biir kaso yi ci réew mi li ci ëpp ku ci daan wax ndax bari na ku ci wax waaye li ci ëpp ku ci daan wax dangaa nekk ci biti di ko nettali ñun nag ñu bëgg fexe ki nekk ci biir di waxal boppam ñu jàpp ne suñ ko doon méngale dafay mel ni caméra la bu ñu nëbb ci biir euh, prison yi pour wone li nga xam ne moom la ñuy dund moo xam li ñuy lekk la moo xam li ñuy tëddee la moo xam euh, seen diggante ak ñi leen di saytu moo xam également condition yi nga xam ne nii bu nu feebaree wala yu mel noonu ak tamit ñi fi nekk ñu war leen att te at loolu nag day fekk kilifa yi nga xam ne ñoo dëkkee Bambey ak li ko wër jàppale artistes yi nga xamante ni ñoom ñoom mébét mbir mi ba bëgg ko taxawal lu comme euh, bu takku lay laaj. jafe na jafewul ndax li tax jafewul mooy kenn ku nekk su jàppee ne yëfi boppam la su boobaa du ci sonn du ci tàyyi lu mu am dina ko ci def ñuy tàllal loxo nag bépp doomu Bambey waaye tàllal suñu loxo aussi autorités yi nga xam ne nii ñoo xam ñu nekk fii mbaa ñu nekk au niveau national. loolu de bu nu ko defee dina saafara jàngaro joo xam ne nii sonnaloon na artistes yi nga xam ne ñu ngi nekk ci Bambey te seen bëgg-bëgg du lenn lu dul fexe ba seen projet bi taxaw. alarba ji fii ci euh, Ndakaaru daañu door édition bu njëkk festival international nationale de musique et des arts de Dakar fi ma mbébétam moo di euh, fexe ba nit euh, ñi gën a dugalante waaye itam fexe ba koom-koom gi gën a yokk su rawatina lu jëm ci wàllu euh, culture fexe itam ba public bi gën a mën a jot ci espace culturel ak artistique bi waaye nag cérémonie officielle de lancement bi naka noonu activité musique